nekk ci der bi yonente bi ne ko déet bu nii nag boole ci soxna yi boole ci soxna yi kon li jiitu ci jubluwaayu dencante mooy kenn ku ci ne mën a gis sa bopp ci sa moroom waaye mën a dundal sa soxna ak say doom mën leen a toppatoo waaye it li ñuy tudde tax kenn ku ci ne mën a dalal sa moroom man koo delloosi bu jàqee man koo soulager man koo toppatoo man koo dimbale ci ay mbiri àddunaam waaye la koy jëmale kanam ci àllaaxira kon nit comme mën a doon danga soxla bokk ci ab famille dangaa soxla eh, adhéré kenn ku ci kenn ku ci ne bëgg nga bu ñu nee diw teg ca doomi diw walla satub diw wala bàyyi diw moo tax lislaam sàmm wàllu googu lool daan ne lépp luy aju ci ci ci ci ci wàllu ñàkk a dencante wala muy indi caaxaan def ko araamal loolu moo tax mu araamal li ñu tuddee sixaaq mooy ñaari jigéen yu séq wala alliwaat ñaari góor yu séq borom xam-xam ñu àgg nañ ci ne ñaari góor fu ñu séqee dañ leen war a rey loolu la jumhur wax am ñu ne tanzir mooy war dañ leen war a yar am na ñu ne dañ leen war a rey xatit ñaari góor fu ñu séq ñaari jigéen fu ñu séq ne dañ leen war a tanzir dañ leen war a yar yar Euh, kilifa gi mooy xool rek lu jaadu mu def léeg-léeg mën naa àgg ci rey léeg-léeg mën naa yées rey àgg nañ kii bay wax ne sax kuy séq ak bàyyi may dañ leen war dañ ko war a yar ndax bàyyi ma kenn warta séq ak moom dara yàlla li mu yoonal mooy góor ak jigéen jaare ko ci anam goo xam ne xam nañ ko kon looloo taxit muy wax ne li ñu tudde planning dafay araam ci nit mu may ñaar ñi lay jënte dañ cee waxtaan ba jubóo ndax ñoom ñaar la la concerné euh, ñoom ñaar it ñooy xam ndax continuer ni am doom lor la ci ñoom wala du lor ci ñoom moo tax ñoom ñaar buñ ci waxtaanee ba juboo rek baax na bu fekkente ne dañoo bëgg na di neefaka def yëf kenn sañ leen ko aay moom kenn sañ leen cee forcé comme ni ko ni ko taal yi defe léegi kon loolu mooy sàmm ngént lii tax nag ba euh, askan woow du sàmm duñ ko ñogal loolu lépp lislaam da koo fàtt da koo tëj daan ne bu kenn tuumaan sa mbokkum jullit njaalo wala nga koy dàqa waskanam naan bàyyi jur ko wala sax da koy gaaral di ko ci léebuwaat naan man daal lu mën a xew sama bàyyi ma jur man yëpp dañ koy tere ku ko def ni ko lislaam waxee dañ la buggal ñetti mbugal mbugal mi njëkk mooy dañ la duma juróom-ñett fukki yar bu dee gor bu dee ab jaam ñeent fukki yar danañ la yar mooy loo waxati kenn du ko shahaada dañ koy dagg waaye it danañ la takkal médaille boo xam ne day wane ni doo kenn kenn mooy fisq sëriñ bi nag radiyallahu anhu mu commencé ndax wax moom mi ngi jege sëriñ bi nag wane na aw yoon sell ci sàmm askan ak ngerte bi sëñ bi ñépp la mbokkoo woon ñi doon ay mbokkam ñépp la mbokk woon kenn ku ci ne dafa daan jox sa wàccuwaay ak sa daraja ba mat sëg daana leen jokk daana leen dimbali boobu nag feeñ na ci leetar yi ak ndénkaan yi mu daan def ku ci mosaan nekk magam wala rakkam sama mag la lay wooyee wala sama rakk gis nañ wooyee def suñ mbusóobe sama nijaay sama xarit maam jaala ki ma bokkal ndey ak baay maam Thierno sama mbokk mi ma bokkal baay gis nga loolu dafay wane ne kon bàyyi woon na xel bu baax a li ñu tudde xis wa nase euh, nas ci suñ Basiiru dafay wax ne sëriñ bi daana tukki lu bari ngir jaale ji mbokkam ci meneen baaxil xadim nee na ba mu demee ba mënatut a tukki mooy bi ko mu nekkee ci loxoy tubaab yi daf daan yeble daf daan yeble bu kenn musaan faatu daf daan yeble bu kenn musaan tawat daf daan la ñu seeti ko nee na ku mën a ku musaan ku mën sonn la woon ci mbokkam mu tawat wala mbokkam mu faatu mu koy jaare ci wa tafaq wali ak di nemmeeku ñi mbokkal ana diw sàngam baa mi ngi ci jàmm ci lu mu nekk nangam nangam nee na daana yónnee ay hadiye yu baree bari ak i sarax yu bari ci ñi ko soxla ak ñi mbokkal diine ci kon sëñ bi moom war nañu woon mat sëkk sàmm na mu koogi waaye it teg ci deru nit lu ñaaw du xejj ak seen du ay mokkam du jàmmoo ku ñëw mu teral digal la nga xam boroomam du boddi du ñax du jànn du xotti saatir ba si Musaa Ka wax balay yaatal ëffal la nga mel ne doomam ñii la daan dundee kon exemple bi lañ soxla soxla wuñ kuy xastante ci réseaux sociaux yi wala kuy saagante wala kuy bojjante déedéet ki ñu soxla mooy ki nga xam ne dafay jël nit ki mbokkum jullitam teg ko ci kanamam jàpp ko ni boppam du màtte du jëw du xool lu warul te siy suub du rummi du mer du xul ci lu dul boromam yàlla rek du xaste du dóore ñàkkul bay fayantoo ndax fayantoo ki koy def mooy ku ñàkk ku jàpp ne dafa am lu manqué du dog du dog war maa ci mbokkam baa boromam du fàtte du fecci wëllëre musu la nit du xaddi du naagu yërmale ngir boromam du bew du bojant day waaru di day waaroo ka du ñëkk du fàkki maasam ngir boromam du reetaan nit du farfarloo du sob nit du yàqu der du tas nit ngir boromam ndax xam ji waaye ji koy yónneen la làmboo mu ne fu la lim nga neelam yeeg boromam sëriñ bi ni mu fonke woon sax ñuy sàmm askan sàmm der ba kenn teg ci sa moroomu euh, nit sa moroom doomu aadama moroom jullit dara feeñ na ci am mbindam lu baree bari ba mën a woon nasara min nisaay comme ni mu ñëwee ci jawhar nafis di tere ñuy xool jigéen ak xale bu góor bu bu bu bu góor yu ak di wéet ak jigéen nam ñëwee ci maxaalib ak faslun fil ji gi nga xam ne mi ngi ci yenn téeréem yi yooyu yëpp dafay wax ñu wormaal cër boobu nga xam ne moom lañ mën a mooy yàlla waaye moo mën a ñi nit ki it ci mu def loo xam ne mën nañu cee yàq ak dara bi ci mujj mooy sàmm alal alal sàmm ko mooy yokk ko ñoŋal ko ba du sànq mu am mat ci lislaam ju mag a ndax dañu jàpp dafay sukkandikuwaay bu mag ci sukkandikuwaay yi nga xam ne moom la dund gi am suñu borom tudde na ko xayr aw yiw innahu li xubbil xayr la shadid tudde na ko ziina ak taar al maal wal ziinatul xayaati dunya tudde na ko aw yiw wa innahu li xubbil xayri la shadid jàpp na ne alal tamit ci li mën a sottal lu baree bari la ci ak jaamu yàlla waaye noonu it la ñu gisee alxuraan ŋàññi na alal su baree bari nee na fitna la nee na ëllëg yow dañ ci nit di ko ci xisaab nee na lu ma yooloo moo tax ginnaaw gis nañ fu ñu koy tag gis fu ñu koy fu borom xam-xam ñu ne alal jëmmi alal amul luñ ciy ŋàññi amul luñ ciy tagg ki ñuy ŋàññee ko tagg mooy ki nga xam ne moom la yàlla teg ci alal bu ca defee lu baax jub di ko fàggoo na mu ko war a fàggoo du ko dugal fa mu ko war a dugal kooku dañ koy tàgg alal jam yor alal ju baax la bu fekkente ne nag da ca def safaan alal jam yor du alal ju baax kon noonu lañ koy sàmmee sëñ bi nag wane na ne alal moom ñaari mbir rek la mën a def ci nit ñaari mbir waxoon na ne almaalu yumiilul qalba imma ila llaahi taala wa imma ila gayrihi taala alal dafay soppi xolu dem yàlla wala mu yóbbu ko ci kaneen daan ne alal ji lay yóbbu ci yàlla mooy alal ji nga xam dañ cee saraxew baa nga jox ci addiya baa nga maye ko yàlla tax baa nga saraxe ko wala nga jariñoo ko ci ak topp yàlla wala nga dépensé ko ci yoonu yàlla daan ne bi lay féewaleeg sa borom nag mooy alal ji nga xam ne dañ cee mooy yàlla kon alal ngànnaay la boo xam ne dafa am ñaari ñaw ka mën na koo jëfandikoo ci lu baax mën na koo jëfandikoo ci lu bon sëriñ bi moom li jàpp mooy alal boo ko fàggoo fi nga ko war a fàggoo def ko fi nga ko war a ba def ko fi nga ko war a def moo xam saraxe la moo xam dépense ci yoonu yàlla la loolu lépp mooy tax alal ji nekk alal dëgg-dëgg kon li ñu koy sàmmee mooy di ko fàggu yokk di ko gës nu ñu koy ban a amee waaye bu ñu ko amee ba noppi ñu dépensé ko moo tax boo gisee suñ tubaa di wax naan wa in wajadtahu fala tudayaa fa man yudayaa al xalaala duyaa boo amee alal bu ko sànq ndax sànq gi dafay dafay juyoo ak sàmm alal kon boo ko sànqut noo koy def atiq bihi kaka infaaqi minhu allazi ihtada bila nifaaq boo ko amee da ci da koy sàmm ci di ci topp yàlla ak di ci dundal te yàlla tax nit ñi tax nag ba alal du du duñ ko ñàkk mooy bu ñu ko amee ba noppi ñu bañ koo sànk bañ cee triser bañ cee naxante bañ cee tooñ bañ cee wor bañ bañ bañ koo lekkal nit te seddul xolam da jaaruñ ko ci anam yoon noonu la ñuy sàmmee alal ji dañuy wax ne lislaam yëpp boo ko doon boole sàmm ci wàllu alal ci wàllu jëflante yi la jubluwaay ba ca gën a mag ba mu am mooy sàmm alal ba du am benn lor fexe ba mu leer nit ñi bu ñuy jëflante lépp leer ñu tawfiq ko bindu ko bu amee bor